وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ثم قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل فيما warada anhu laa taxaasaduu wala tabagaduu wala taqaatacuu wala tanaafaru wa kunu cibaada allahi ixwanan kama amarakum amma bacdu fa yaa cibaada allah ittaqu llaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimun wactasimuu bixablillahi jamiican wala tafarraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ثم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله summa tuwaffaa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamuun qaala taala faxtalafa alaxzaabu min baynihim fa waylun lilladina zalamuu min mashhadi yawmin azim asmic bihim wa absir yawma yatuunana lakin alzalimuuna alyawma fi dalalin mubin haza wa salawatu allahi وسلامه عليك يا خير خلق الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أو كما قال وسلموا تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم bokk julliti gannaaw biñ sante yàlla tabaraka wa taala ci xéewal yu ñu jox doomi aadama bés bu ne mu gën di ñu won gën di ñu jàngal gën di ñu jox won ñu li nga xam ne mooy yërmandeem bi nga xam ne bu ko neexoon moom yàlla du yónni benn yónnent bu ko neexoon moom yàlla du indi kenn ci nit ñu baax bu ko neexoon moom yàlla mu bañu ci kaw suuf bi àllaaxira jot ku ci nekk mu ne def nga lii ci lu baax ma fay la ko aljanna kii def nga lu bon ma fay la ko safal wante bokk na ci yërmandeem mu yónni ay yónnent ngir ñu wax ñu lan la bëgg moom yàlla lan la bañ moom yàlla nan na jaam bi di def ba texe tekki àdduna ak donte nit ñaa ngi foog ne texe ak tekki mu ngi ci yorum alal wala yorum koppar déedéet bu ko neexoon moom yàlla mu bañ a noona waaye kenn ku ci ne mu abal la mu jox la mu may la lii nga xam ne moo gën cher ci àddina bi àllaaxira mooy xol bu set mooy xol bu set mu waxoon ne moom sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala inna fi ljasadi mudga ida saluxat saluxa aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh ala wa hiya alqalb ne ah waay yellente woon na ngeen xam ne am na benn lumbu deret bu ne ci biir jëmm doomi aadama ay lumbu deret boobu bu baaxee lépp bu baax waaye bu bonee lépp bon dina ko moy lan mu ne mooy xol bu doomi aadama alqalbu salim ca yontu yàlla ibrahim nam ko waxee woon dem ba ñu juumloo ko won ko lu ne won ko àddina bànneexi li fi ne nguur buur li fi ne ci teraanga ñu foog ne nit moo ko moom wala nit moo ko war a jël toog ca mu taxaw ba mu ne ko mu ne innahum aduwan lii illa rabbal alamin wut na yàlla ci biddiw yi wut na yàlla ci naaj wi wut na yàlla ci weer wi fu ne mu wut fa yàlla fa lamma janna alayhi llaylu raa kawkaban qaala hada rabbi fa lamma afala qaala laa uhibu al afilin fa lamma raa alchamsa baazigatan lu ne mu xool ko dem ba ci bi mu ne ah du bii du bii du mu dem ba gis ne ku fi nekk kenn ku fi ku dul yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ne kon ñëpp samay noonu la noonoo naa ak ñëpp ñëpp noonoo nañu ak man ba mu des kan rabbal alamin rabbal alamin mooy yàlla ki nga xam ne xalaqanii moo ma bindi fa huwa moom moo may nag yàlla yahdiini moo mooy jubal teg ma ci yoon bi ma mu wax wax ja mu gud lool isa maritu wa walazi yumituni suma yuxiini atma an yaxfira li xatiyaati ba ñaanal baayam waaye fan la jeexalee wax ja mu ne illa man ata allaha bi qalbin salim xol bu laab xol bu wër nekkul ne dañ lay yóbbu ci cardiologue bi mu xool la diagnostic la ne xol bi baax na mu ngi dawaas ba du boobu boobu deret bi la waaye al qalbu salim mooy bi nga xam ne yërmande yàlla mu nga ca bi nga xamante ne leeru yàlla mu nga ca sopp yonente bi sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën nga ca bëgg yàlla mën nga ca xam neex-neex yi ci àdduna nga jox ko ginnaaw mën nga ca waaye nga xam ne alaaxira kenn du ko amee ci ay caaxaan nga taxaw nag ba nga mën a góob wala nga mën ji ngir góob ko ëllëg moo tax mu ne tansa nasiba min ad-dunya min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabghi al-fasada fi l ard ci ay alquran jàng léegi sayyidina wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni bésu ëllëg bi lañuy ñuy dugg ci weeram xamante ne mooy juddu sayyidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah kon kay ñu ngi xam ne ñooy anniversaire al seen doom yi anniversaire al seen soxna yi anniversaire al seen borom kër yi di anniversaire al seen xale yu jigéen yu ñuy waaj a takk te takkuñ leen anniversaire ak ñoo xamante ne soppe kese moo tax nga dugg nga dugg nga nga seq ak ñëw xanaa kon tey jii ngën ji mi def sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam anniversaire mu ngi ñëw ci ni ko mën a waxee ci waxe mu mel ni juddoom bi ñu war cee mën a jàngee lu bëree bëree bëree bëri loo xam ne xejul ci xutba déedéet xejul ci ay fan déedéet xejul ci àddina waaye nag mu xeet ci ay kaddu kaddu yoo xam ne kenn ku ci nekk jàngat ana lan moo tax yàlla yónni yónent bi ana lan moo tax sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal ci zahir mu juddu ana lan moo tax yàlla defu ko mu nekk beneen melo bi maana mu nekk nit te nekkul leneen te yàlla ne ko man maa la yónni def la nit mu wax ak ñun wa ma arsal wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi pour lan li la lahum xeet bu ne mu ne yónni na ak nit ci ñoom waaye xeet yi ma yónni yëpp nag yéen a leen gën xeet yi ma yónni ay yónnent yëpp yéen xeetu sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen a leen gën ñu war cee bàyyi xel lan moo tax ñu gën ngënal bi fan la lan la yonente yi ma yónni yëpp itam kii nii moom laa préféré moo gën te nag moo gën te wallahi wal qur'an al azim moo gën sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni moom ci boppam moo ñu wax mu ne kuntum xayra umma uxrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله nañu xool aaya bi kuntum yéen ñi nga xam ne yéen a juddu kañ gannaaw yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yónni ko ci yéen gannaaw Isa Moussa ba ci kaw 124000 prophètes yépp ñu romb kuntum yéen nag xayra umma yéen a gën gën ci lan ci xel gën ci lan ci yonent gën ci lan ci téere bi ndax yéen la yàlla jox alquran te alquran moo indi lépp ci nekk ci téere yépp mu ngi ci biiram uxrijat linnaas ne maa leen sélectionné ci biir nit ñi ci biir doomi aadama yi gàttu leen lool te njoodu leen lool te njool lool njool lool ñaawaay la waaye gàttu lool ñaawaay la ma indi leen def leen wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan wasat الوسطية في الكلام الوسطية في الأكل الوسطية في الحياة الوسطية في الشرب في كل شيء yéen da ngeen diggu dóomu pomkalu leen ba ñu ne kii lan la ndax nit la wala jinne la waaye tuutiwu leen itam ba ñu ne xanaa kii melentaan la uxrijat linnaas ma sélection leen ci biir nit ñi ta'muruna bil ma'ruf ndax yéen da di ñaaxante di joxewante aq bi am ci lan ma maaruf ci mbaax ma maaruf ci yiw bil maaruf ci njub ma maaruf ci ñàkk ki ñaan bil maaruf ci xol bu laab bu sell bu set wicc boo xam ne fii ci àddina waaye bu àllaaxira xam ne fu mu jëm mooy lan aljanna yal nañu ko yàlla defal ta'muruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar lan moo tax yemul ci ta'muruna bil ma'ruf yéen bi ngeen di ñaaxante ci lu baax di sant ku jël di sant sama defal lu baax mënu nga ca yëpp waaye ba noppi nag nga taxawaat ne bàyyi lu bon pourtant kii def lu baax nga ne ko defal lu baax mën na nekk ne mën na nekk mun na ñàkk a nekk mën na nekk ne kon yaa ngi koy wax ne bul def lu bon waaye ngir tëj boobu page mu ne ngeen bàyyi lu bon ndax mën nga def lu baax ba noppi ñu ne dañ dañu koo sant. nga dem def lu bon ñu ni waa dañ la waxoon ne defal lu baax mun ne def naa lu baax waa léegi lu tax nga def lu bon mu ne terewuñ ma ko te santuñ ma ko kon maay xool lu ma neex ma def ko mu te pour mu tëj page mu ne a ma ta'muruna bil ma'ruf tanhawna anil munkar da ngay santaane lu baax waaye itam nga tere lu bon kon su waa kon lu bon dootoo ko mën a def ndax waroo ko def kon lu baax dañ koy def parce que dañ ko war a def sant nañ la ko lii mooy alquran wa tuminuna billah ngeen gëm yàlla lan mooy gëm yàlla nag al imaanu maa waqara fi lqalbi wa saddaqahu l amal li ne ci sa xol pas-pas itiqaad bi nga xam ne moo ci nekk koo gëm sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyi leen tawoon na kon ki nga gëm li mu santaane nga ne ca li mu tere nga ba ko yelente woon na ki nga gëm nga ne moom nga préféré ci yonente yëpp te loolu par force la ci yow ndax amoo keneen juddu ginnaaw Muusa ñii ginnaaw Isa waaye juddu ginnaaw moom moom sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëmu ca mu ne kon tuminuna billah mooy li nga xam ne nga pas-pas bi am ci yow ci sa xol nga gëm ko la nga xam ne moom la pas-pas bi laaj nga jëf ko ñu gis ne kii lii lay def kon jëf bi mooy wane li ne ci xol bi jëf bi ngay jëf moo wane li nga gëm su fekkee ne nag ñaar yi nag wuute na foofu lay danger ko doon tudd naafeq li ne ci xol bi ak li mu def bokkut li muy wane ak li ci xol bi bokkut wala li mu def ci biir ak li mu def ci biti bokkut kooku mooy naafeq kooku la yàlla mere ba ne innal munafiqina fi darkil asfal min an naar ne ñii nag mooy naafeq yi ñoom moom safara fa mu yem ci suuf ca suufa suufu suuf foofu laa leen di suufale te foofu moo gën a tàng kon mbokk yi su fekkee ne ñu ngi dugg kon ci judd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu am loo xam ne kon def ñoo war fàttaliku kan mooy moom fàttaliku lan lañu ko yónni fàttaliku lan lañu bëggal fàttaliku ñun lan lañ bëggal suñu bopp moom day dundul soixante dix ans déedéet moom ci diggante soixante un ba soixante trois ans mu génn àddina liggéey fi lépp nag xeex fi nag façon xeex bu ne mu xeex ko tuuma bu ne ñu tuumaal ko ko axa kay saaga bu ne ñu saaga ko ko gaafal ko lu bon lu ne ñu wax ko ko moo ne moom day yónnente la ba yàlla taxaw di ko pëledeel ne waa ji deful le déedéet ba mu demee ci asamaan bi ñëw itam ñu weddi ko mu ne bu leen ko weddi de yàlla di pélédel kan sang-sang yi sayyidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëllante woon na su fekkoon ne borom parti la waa parti bi jàppale ko yëllante woon na su fekkoon ne waa parti la borom parti la wala chef parti la woon waa parti bi mu jaral leen seen bakkan yëllante woon na su fekkee ne njiitu par parti la woon moom sayyidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa parti bi déggal ko gunge ko tabaan borom parti la ah kay ban may parti mu ne ana inna xisba allahi humul muflixuun ala inna xisba shaytaan humul xaasiruun kon xam nañu chef de parti ci mbaax ci njub mooy sayiduna nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidul mursalin su fekkee ne nag ci wàllu mbon xisbu shaytaan kooku shaytaane mooy seen kon yàlla dafa tabax lépp bàyyi waaye ki ñu jiite mooy kii moo tax mu ne imaamul anbiya xaatamul anbiya wa imaamul mursalin lu ko waral ndax moom la kon mbokk yi moom mu indi lu doy mu dund lu doy waar dóor nañ ko mu damm bëñu taxul mu arrière ambar góor nañ leen ñoom jullit ñi taxul mu baay saaga nañ ko taxul mu baay tan nañ ko ak ndëmb taxul mu bàyyi lu tax ndax moom moo dëgg ci dëgg bi ko innaka la tahdi ila siratin mustaqim dafa am yoon bu tax a jóg dafa am xàll yoon bu ko tax a jóg kon il faut que projet boobu mu mottali ko mu liggéey ko ba noppi nag daal di bàyyi ñeenti nit ci ginnaawam Abu Bakar wa Omar wa Ousmane wa Ali mu jëral leen Sayyidna Abu Bakar as-Siddiq takmila li lahji rasul sallallahu alayhi wa sallam omar ñëw takmila li abou bakr wa nahji rasul omar osman ali ñoom ñëpp ñu ñëw kon ñii nga xam ne loolu lañu indi ñu ne wa ala alihi wa sahbihi nga xool ñeenti nit la ñu woon léegi parti ci àdduna bi ñaata lañ njiitu réew yi ñaata lañ ministres yi ñaata lañ réew bu ne am na premier ministre wala mu am vice président réew mu ne am na ministère de l'intérieur am na affaires étrangères am na santé am na am na am na comme ni ngeen ko xamee ci réew réew bu ne am na ko te taxul dara dara dara dara dara changé ci àddina lu dul gën a bon gën a dellu ginnaaw nga xool ñoom nan bi ñu fi nekkee ñoom ñeenti ñoom juróom boobu ñoom ñeenti saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aduna doon dem ci kanam waaye léegi ci axiru zaman mu mel ni dañuy dellu ginnaaw lan moo tax kon chef de parti bi. li mu santaane woon defuñu ko mu nekk lu wóor lu leer ne bu ñu njàngat juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la taxoon yàlla indi ko ci kaw suuf loolee def na wàllam te wax na ko allahuma qad ballagtu allahuma fashhad mottali naa li nga ma yónni def naa ko yaa ma waxoon ne balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fa ma ballagta risalata wallahu yaasimuka min annas kon looy tiit day ragal li ma la wax li ma la sant yu ma la yónni demal nga wax ko nga def ko kantaan pour ragal lii ragal bu ragal dara yàlla moo lay aar buñ la sànni wala xëy sa bul bul gestu loolu mooy wane ne bu nekkee ci yoon bi il faut problème am il faut fitna am waaye kon il faut lan mu am nag aaya yu jàng léegi mu bari ci alquran fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusul واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا muñal lépp baatu la la muñal wasbir wa maa sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkuruun inna allaha maa alladina ittaqaw walladina hum muhsinun fasbir wuñal ci bu la indil ay problème di la xatal muy say soxna wax na ak yow na nga leen fase na nga leen sànni fale ma wax ak ñoom man yàlla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa taamal salihan nutiha ajraha marratayn wa atatna laha rizqan karima ها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أقمنا الصلاة آتنا الزكاة أطعنا الله mu wax ak ñoom yu ne ñoom ay soxnaam ñu ko gën a jege bu ngeen bëggee dof dof lu nag ansaara buhu na in tallaqakunna aw yubaddilahu azwajan xayran minkunna muslimat muminat qaanitaan taibat abidat saihat tayibat wa abkaara lu ngeen foog e ma koy bàyyi rek mu wéet du wéet boo ngi indee complot yëfu jigéen man yàlla man maay lànk asa mën na am te asa bu yàlla asa yàlla mooy day am bu leen fasee mu indi ñu leen gën kuy jaay ne yow jànq nga ma indil ko jànq kuy jaay ne da ngaa gëm yàlla da ngay muuru ma indi ko kuy muuru kuy jaay ne jéeg nga ma indi ko jéeg yi la ko waxee ngir kan sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu ngir lan bañ ko ko sonal bi saxaaba yi demee tam bi commencé di ko miin ndax nit boo miinee nit rek doo ko xamati nit soo miinee nit doo ko xamati nga xamati nit boo miinee nit dootoo ko xamati waaye nga xamati nga réew nga fuuy ay waxe nu la neexee ci kanamam wala ci wetam di yëkkati baat di jaay te doo dara doo tus lan la leen wax guddi jot nañu ñëw toog ci wetam ne fa di waxtaan réer bi pare ñu réer bi pare ñu ne fa di wax di wax di wax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam commencé gëmmantu te comme moom kër borom kersa la waxu ne nañ dem tëri te commencé gëmmantu commencé junk ma tax foofu yàlla ne jibril dama nga wax ak ñoom bu ngeen lekkate be noppi moo xam da ngeen di xaaraan wala da ngeen di waxtaan na am na ñoo xamante ne réeru guddi am na ñoo xam ne xaaraankat lañ ñuy xaaraan rek boo xaaraan fii ba pare nga dem bale xaaraan fale xaaraan dañuy xaaraan rek dafa dama demoon gàllee ñoom diw dara da ngay fen da doon xaaraan rek mu ne ñi nga def dañoo xaaraan si ak ñi xam ne dañoo ñëw waxtaan si ak ñi ñëw ngir déglu waxam mu ne bu ngeen lekkate rek iza taimtum fantashiru wala mustanisina li hadis inna dalika kana yudi nabiya fa yastaxyi minkum wallahu la yastaxyi min alxaq ah, bu ngeen lekkate jóg leen ngeen dem ngeen def ñaam xaat poli ne séeréer yi ñaam xaat xamuñ ne séeréer yi defuñ ko yàllaa ko wàcce boo lekkale jógal dem rawatina nag bu fekkee ne da nga doon da doon xaaraan boo lekkee jógal dem doo fiy defati pare nga kay da ngay solo nit ki sax isa taimtum bu ngeen lekkatee isa taimtum bu ngeen reeree fantasiru to ngeen tasaara wala mu sanisina yi xaj ñëw fi naan dama koy kii di mu ne da ngeen di fen bu leen ko sonal moom ne dafa am kersa man aw ma kersa man yàlla wallahu la yastahi min alxaq jóg leen ngeen ñibbi xanaa boobu leer na mu ñëwaat ci ñi nga xam ne ñu nekkoon ci wetam nag yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla mu ne yéen lay waxal يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين ñaar ñëw إن الذين ينادونك إن الذين يغضون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وإن الذين yaxudduuna aswaatahum inda rasul ulaika in alladina yunaaduunaka min warai lxujurat aksaruhum laa yaqiluun walaw annahum sabaru xatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum ah Muhammad Muhammad da nga ni ko Muhammad te pourtant bu dee sa président doo ko wax turam da nga wax ne excellence sang bi wax ko sang bi ya rasulallah ya habiballah mu ne wooyu leen ko tur yooyu waaye Muhammad ay waay yaa ñàkk teggin sa baay sax nga wooyee ko turam sax jaaduwul sa sëriñ nga wooyee ko turam sax jaaduwul mu tax da ngay nekk ci wetu kilifa nit ñëw sàllañ ko ci tur am ku ci mer am na naan bàyyi leen de dañ ko war a jàngal parce que dof la lu mel ni président toog ci biir famille nga ne ko Macky yow dañ laa war a fudd yow dóor la bi ngay bëgg a dee excellence monsieur le président monsieur le ministre monsieur le directeur général Moustapha ah Moustapha doo imam ah dañ ko yab ah dañ ko xeeb moo fi nekk yonent bi sallallahu alayhi sa doom la sa jarabaat la danga nga réew danga fuuy ne ko yaa imam al akbar ah kay sëñ bi sang bi yooyu mu neex léegi nag nga xool nag loolu ba mu jëlee nag ba jeex nag lan mooy résultat bi ci la ñuy ñëw nii te lañu tëjee wax ci sayyiduna wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jox ñëpp cër bëgg ñëpp joxante cër li mu indi woon nag mu ngoog réeral nañ ko puso bi réer nag ñu bëgg ne li nga xam ne moo fi nekk ci li xotteeku yëpp ñu ñëw ko moo lànk moo bañ damay faral di dégg nit ñi di ko wax bañ koy wax instant nit bu ko waxee dama koy xoolaat wala ma dégg nit ne dit wax na ko ma di ko xalaataat man wax naa ko depuis deux ans ci ginnaaw ma ne gis nga fi mu ne nii li ma ci gis ci àdduna mooy nañu dee ñun ñëpp te jot na jot na ñun ñëpp ñu dee ku xool àdduna bi jamono bi ni muy doxee léegi xam nañ ne àdduna bi dafa expiré bu dee ci garab pare na jeex na fii ku fi dund sax danga nga dafa jot ñu ñëpp ñu dee dafa jot ñu suul ñëpp mu jeex yàlla atte ku ci nekk dem fa ngay dem ndax li ñuy dundee ni mu bonee ni mu yéesee loola moo dem ba dugg ci famille yi génn ci famille yi dem ci réew yi léegi nag lépp a ngi nii yàlla ne danaa leen ko la tarawunna al jahim la tarawunna al jahim balaa nga dem ci bitim réew xoolal suñu réew li fi ne ci réewande ci xamadi ci réseaux sociaux yi ci tali bi dawal oto rek gis ku xamadi ku réew ba xam ne kii dafa réew génn nga dugg sa biir néeg nga fekk fa ay nit bu ñu summee dàll yi nga xam ne du ñoo fi ne ni ñu summee dàll sax xamuñu ko fi oto ba ñëwee nga xam ne fii ñu réew ñoo fi dëkk ñëpp a ci waxi ci tali bi embouteillage bi dara waralu ko xamadi la ci ni ñu dëkkee du dara xamadi la ak ñàkk yërmande waa xanaa kon jot na bu buñ dimatee benn judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na anniversaire am ñëw na ñu xool nag lan la ñu santoon ñu jéem ci sax jël ñett wala ñeent buñ jëloon benn rek yërmande matoon na waxuma la ñuy boole ci njub waxuma ñuy boole ci ndimbal dimbalante sa morom bu ñëpp bu kenn ku ne bu yërëmee sa morom rek lépp baax na ñu xool nag bi nga xamante ne àq yi bëri na yow yaa ngi bëgg a yoral nit ñëpp ñu foog ne dañ koy séddili ci màndute nga sàcc nga jël dinaa joxe benn misaal xool leen li xew suñu réew ci temps yi ku ci nekk damaa bëgg a nekk président ku ci nekk damaa bëgg a nekk président lan leen liggéeyal réew mi li war a tax ku ci nekk damaa nekk nekk président lan moo nekk ci président lan moo fa nekk moo tax maa koy wax ay imam ma ne leen deux mille vingt neuf defe naa mooy ñëw bu at mi passé 2024 bu passé bii ñëwaat pour exe pour beneen beneen jongante ci réew mi ban at la 29 wala 39 29 ñëpp lañ jóg ñëpp lañ nekk président dafa jot présidentielle yii di ñëw yéen ñi nga xam ne yéen a te diine ji diine daara ji alquran bi. ne yéen la yàlla bàyyi fii ngeen donn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donn waale yonente yi yàlla ne al ulama warisatul anbiya yéen yàlla ne yéen a fi gën ko man taallama qur'ana wa allamahu ngeen xool adduna bi muy jaxasoo di ko seen àq la seen yëf la kon kay bii moom bu leen présenté xam ne ngeen def fexe leen ngeen jël nit ñi téye leen ba koo xam ne boo ko bëgg a président bu ko présenté wu na leen seet ngeen teg ko nag examen ko nag bu réussir ngeen ne kii mën na dem bu réussirul ngeen ne kii mu réussirut te fi lañ jëm bu ñu ko defut danañ ngeen danañ jóge ci bon na ñëw ci gën a bon fi nekk ñu ngi dund bon na ci la nekk bon na ci la nekk léegi nag bu gën a yaatu nag ñu dund ci gën na bon da ngaa bëgg nekk président lan nga def loo soxla loo bëgg loo fi def ñu xool nag yow say baay say maam say lan ngeen def ci réew mi est-ce que mérite woon yor mérite woon ngeen yor réew mi lépp ñu xool ko fi leen fi leen jëm léegi kenn dofatul ñëpp yeewu nañ kon bu boobaa kon kenn ku ci nekk war na kon bàyyi xel kan mooy sang-sang yi sayyidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam quant à 2029 nag ñëpp jóg nag ñëpp ñoo xamante ne wàllu diine la ñu yor ku ci nekk na xool ca ka nga xam ne mën na ko tal na ko ñu préparé ko ne demal nga jongante pour nga jël réew mi comme que jël réew mi lañ fa gis mooy bu waree bàyyi wala bu bàyyee wala buñ ko daanee lu bon ak lañ fiy gis sàcc na la ñuy dégg noot na lañuy dégg tëj na la ñuy dégg yàq na la dégg rey na lañ koy la dégg te lii yëpp baaxul te yéen ngeen bu ngeen yoroon réew mi du ngeen ko def kon lu tax du ngeen du ngeen dem waaye ñu gëm leen ne déedéet sëriñ warul politique sëriñ da ngaa indi politique dugg leen maanaam politique yéen moom taalibe yii nga xam ne ñooy joxe. li nga xam ne mooy impôts yi yéena jóg doom yi joxe impôts yi yéena yow dëkk yi ñëpp tëdd dina la wala ñëpp dem jàngi yéen ngeen dem ci àll ba gor ko jàngale alquran junne nit ñetti junne nit un million de personnes nga di leen dundal te laajoo kenn dara te ko ñëw nga dundal ko bés ñëw ñu ne yow bokkuloo demal toog fee nga nangu ko yaa naa ko fulla yaay mbaam ci lu leer di ko dalee ajuma ji nag bi fii balaa 2024 nañu xam ne maslaa jeex na maslaa jeex na nañu waxante dëgg xoolante ci biir bët ngir sauver suñu réew mii nga xam ne moo tudd Sénégal bu ñu ko deful lii ñëw dina ñëw bi ci des mooy àq baaxul xoolal liy xew diggante Maroc ak fii nga xamante ne mooy Libye depuis ñaata at ñuy rëy ay doomu sénégalais ci àll yooyu ci géej googu ñuy wax rek si leen ak baaxul ak baaxul ak baaxul indi sa indi sa indi sa gaal def ko ba mu fees ndax sa réew neexatul mënoo fee dund nga wut fa nga dundee ñu ñëw tiire la bal wala ñu rendi la rendi comme ginnaaw joxal xaalis mënu jox xaalis ñu rendi la rey la wala ñu jaay la waaye léegi yàlla moom xanaa moomul àdduna il faut que président de la république mooy xool ku ko neex mu tooñ ko mu tëj ko waaye yàlla nag yàlla du ma leen tëj waaye dama lay yebal rek ay tuufaan sana alayhimu tuufaane wal jarada wal qumala wal dafaadia wa dam ayaati mufassalaat tëj leen kaso déedéet am na xeet yoo xam ne yàlla dafa yónni ay téeñ téeñ ñëpp téeñ téeñ am na xeet yoo xam ne yàlla dafa jël ne ndox mi képp ku la bëgg a naan rek ndoonal deret da ngay xel li ndox pour naan buy laal tuñ bi rek mu nekk deret doo naanati waaw pourquoi yàlla téyewul teen yi ak ndox mi waaye dafa joxe ndigal te ko innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ndox nekkal deret boo laalee tuñ rek nekkal deret ndox bi laal automatiquement mu nekk deret yow naan deret nga teg ko fa la am ñoo xam ne ay mbottu la yàlla yónni ci ñoom am ñoo xam ne de leen changé def nañ ay xirada nekk ay golo dugg ci néeg bi di génn jàkkaarloog sa njaboot sa jabar wala sa doom ñu gis boppu golo mu ne baay nga ne mën a sa baay mu ne déedéet kii kay golo la mu changé la golo am na ñoo xam ne xamante tuufaan yoon ñu ndox ñii safara ñii ngelaw kon lii bee ngi nii il faut que jël wàllam li ngeen faree ci ay doomi aadama yàlla na danaa rey ci yéen ñu ngi ci ñaata mbir fi mu nekk nii te si ba ñu ngi woon ci 7000 seen premier ministre bi ñu ngi ko wane ma taxaw di wax di mer di coow lay mer ak sa gàttaay lan ngay mer ne lii moom waxuma la sax soxlaatuñu ku ñu jox lekk ak naan waaye li ñu bëgg mooy ku ñu jàppale ñu génnee nit ñi ah léegi tey ngay génnee nit te yaa doon rey doomu jàmbur yi démb ren jaay mu rog bii ci géej gi ñu ne yéen yéen a yi ak Sénégal yéen ak Sénégal benn ngeen ngeen rey xale yi. di jàpp xale yi xale yoo xamante ne amuñu dara xamuñu dara dañuy wut teraanga nga ne leen jàpp leen delloowaat lañ seen njiit yoo xam ne xamuñu dara duñu tus duñu dara ñu ngay lekk dinaa ñoo ko seen ñu doom ñii seen doom yi amul ñu ñëw di wut fu ñu jaar nga jàpp leen joxawaat leen da ngeen di am jàmm du am yàllaa lank yàllaa bañ fii lañ koy waxee mu leer nañ mu des nag réew moo xam ne def nga fi lu bon mos koo def yàlla dana la ko mosal ba nga yëg ko France moo ci teg amatuñu jàmm moom ñu def Afrique rey ay nit jaay ay nit jaay suñu maam yi ku fi musa def dara ci àdduna yàlla ne danga ko gis wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura summa yujzaahu mooy lii naa la ko fay ba mat Tunisie defoon na ko dana laal Sénégal def na dana laal ku laal rek dana laal mënoo jël kaane naan ko nga ne léegi saful jël ndox mu sedd nga ne yëgoon ndox mu sedd dana la laal par force ayna al mafar ana ana dawukaay fan lañ jëm benn rek la an narji ila allah delluwaat ci yàlla tuub jégglu xarit bu ñu mujjee jàng léegi bés bu ñu jàng fi mu ne laa taxaasadu laa tabaagadu laa taqaatau laa tanaafaru ay waay baa leen kiñaan kiñaan baaxul ay waay baa leen merwante ay waay baa leen yàqalante ay waay baa leen jóow ay waay baa leen kiñaan ñun ñu duur si dafa am nitu yàlla mu musa wax ci jumaa ji mu ne dee nit bu ñëwee ne diw sama xarit la mu ne neex yéen ñaar su fekkee ne dee taxaw na daanu seen diggante ne kii laa jël si nooy def pour nga xam ni xarit la wala du xarit mu ne nooy def su fekkee ne xee dee dafa ñëw daanu seen diggante ne yow laa jël si kii ne ko déet kii doo ko yóbbu mën ngay yóbbu mu ne ko ci kii lañ ma ne mu ne ko doo ko yóbbu mën ngay yóbbu ndax man li ma bëggal sa bopp laa ko man bëgguma mu dee mën dee moom mu dund kii ne ko déet bàyyil ma dee rek mu ne ko déedéet doo dee mu ne bés boobu kenn du dee yàlla dana kon yéen du ngeen ma gën a gore dee bàyyi leen fi nga dem kenn du fi dee si ñoom ñaar tey fan la amati tey su fekkoon ne ku ci nekk li nga bëggal sa bopp nga bëggal sa morom su fekkee ne njiitu réew mi bu waxee ne man damay dem yéen ñi fi des xool leen seen bopp kenn bëggul bàyyi sa bopp sa kon ke li nga bëgg sa bopp bëggaloo ko sa su fekkee ne yow imaam bi yaa ngi bëgg imaam bee dee ba nga jël place bi kon kay yow bokkato fekkee yow sëriñ bi yaa ngi bëgg pour jël sëriñ ba dee nga ñëw taxaw wala bu kenn feeñ yow rek nga feeñ kon kay bokkatu la yow DG bi yow ministre bi yow gouverneur yow préfet ba yow mi nga xam ne yaay borom kër gi ba yow mi nga xam ne yaay mag ci kër gi kon lii yëpp sayyidina wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam juddoom dafa ñëw pour effacer lépp loo xam ne bu ko nit ki defee rek am safaan kon nañ jàngat suñu bopp xoolaat suñu bopp xam ne lii di xew ci àddina noonu la kantaa ci parti politique yi nag alquran wax na ko fa xtalafa al ahzabu min baynihim fa waylun lilladina zalamu min mashhadi yawmin azim asmi bihim wa absir yawma ya'tunana lakin az-zalimuna al-yawma fi dalalin mubin ixtalafa al-ahzab min baynihim ñu ne parti yëpp jaxasoo nañ ixtalafa al-ahzab min baynihim ñoom parti politique yi kenn ku ci nekk ca la nga nekkoon ak ci li nga ne léegi nag kenn ku ci nekk yaa ngi joxoñ sa morom joxoñ sa bopp kii moo bon ñii ñoo bon ñii mënuñu man maa baax man maa man ñëw leen ci man mu ne ah attention de fa waylu ndaw mbugal fa waylu ndaw coono fa waylu ndaw fitna lilladina zalamu tooñkat yi ñan min mashhadi yawmin azim ci barab boo xam ne barab bu yaatu na muy àllaaxira ñu war ku ci nekk ñu war la atte kon wax leen jàngal leen wan leen yoon nga won leen ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama la yónni ci ñoom ngir yërmande wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon bu ko defee kenn ku ci nekk ñu delluwaat suñu bopp xam ne weeru gàmm jot na taxaw na da ca des fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci juddoom bi ñu dugg ci weeram kon kenn ku ci nekk à partir de tey nga taxaw nag xool sa bopp ren ba daaw juddu yonent bi sallallahu alayhi bu daaw bi ak bu ren lan laa fi def lan laa defal lan laa def lan lañ ma def lu fi baax lu fi bon nga tànn ko nga xam ne kersa ba mu waxee inna alladina yunaaduunaka min warai alxujuraat ña nga xam ne ñooñu yabaate yi di la woo ci ginnaaw nga xam ne kon yabaate baaxut te boo yabaatee ci nit da nga yabaate ci keneen yabaate ci keneen kon yabaate na jóge ci yow ba dootoo yabaate ci kenn naka noonu kiñaan bu nekkee ci yow ci kenn dana dem ci keneen kon fexeel bu kiñaan bu mu am ci yow lii la yonent bi sallallahu indi ne lii moo tax ñu yónni ma moo tax mu ne ko balligh ma unzila ilayka min rabbik li ma la jox tasaare ko wesaare ko mu wax ko pare mu ne ko ah allahumma qad ballaghtu allahumma fashhad ah li ma waxoon def naa ko nag kon seedeel ne gars yi wax naa ak ñoom mu indi baqara be naas ñëpp bañ koo liir jënd ay journaux di liir bés bu ne nga jënd trois journaux quatre quatre cinq six sept déglu yëpp xool lépp waaye benn page alquran doo ko jàng doo ko jàngaloo sa sa doom moo tax loo ci gis doom yëpp commencé delluwaat ci mbon ndax nit ki boo ko jàngalee lu baax rek bu dem bon yow tam boo baaxul rek yaa ngi bon soo bonul yaa ngi baax kon alquran mu ngi fi bëri fi lool ñu nga nee tege waaye kenn du ko liir te pourtant lu yeewut ab lewut sax da jël jàng waaye kenn du ko jàng jumaa yaa ngi fi fees del doo fa dem waaye yaa ngi dem di fay di dem ci barab yoo xam ne dangay ngay fay pour dugg pour fo pour caaxaan moo xam stade la nga dem fa dañu ne liberté la ñuy liberté yaa ngi dem ci collège dara yi yaa ngi dem ci yooyu noonu yu ñaaw yoo xam ne da ngay fay xaalis pour dugg jàkka yaa ngi fi du fees ajuma bi ajuma lay fees te jullit ñi fi nekk ñoo fi ne te képp ku ajuma mu ngi war a julli tisbaar takkusaan timis ge waaye dëgg soxlawuñu boo xam ne dañuy dund ah dañuy ñaqi waaye dund ak ñaq ki ngay jaamu moo lay jox yàlla ne li ngay naan moom moo ko yoroo ko mën maa ko yor afara aytum al maa alladi tashraboon antum anzaltumuhu min al muzni am nahnu al munziloon afara aytum an naar allati tuuroon li ngeen di lekk ndax yéen la matt bi sax ndax yéen la man la man man yàlla mën naa ko sax ñëw leen ci man ni bu ngeen fexee ba ragal ma ma def lépp lu ma bind mu ragal leen waaye bu ngeen ma ñemee yàpp ma di ma fooye ma def lépp lu ma bind mu yàpp leen di leen di fooye ba xattaa puso nga laa ko sax mu jam la te xam fu mu la jamee mbokk yi nañ ragal yàlla nañ dellu ci ragal yàlla bu ragal yàlla yàlla ne lépp dana baax wattaqullaha wa yuallimukumullah wa taqullaha mastataatum wa taqullaha yaa yii yëpp mu di ko wax ragal leen yàlla rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa al abrar ya aziz ya gafaru ya rabbal alamin allahuma rabbi habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله علام الغيوب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه 7 TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 TV est au canal 10.